waxtaan bi jëwriñ Ndiassé ci émission bi di c'est politique ñëwaat nag ci kàddu yi nga xam ne euh, soxna Aïda Mbodj moom yaay Ousmane Sonko yëkkati na ko démb ndaxte démb la ñu ko daal di teg ci euh, bopp DER euh, di kuréel gu nga xam ne dañ ko fi defaroon pour mu daal di jàppale ndaw ñi ci wàllum financement ak ni mel moom nag kàddu yi yëkkati mooy képp ku goxoon jàppale ne dañ ko goqi doon ay kàddu yoo xam ne yëkkati na ko. Ah, ñu ngi ci opéra lañu ci mën jàng way. ñu ngi ci opération gox yi. waaw dafa mel ni <laughs> kàddu premier ministre rek la daal di daal. waaw mais ah. moom tel naa menacé bi moom nañu def passation de faire lu bàyyi ba xool dossier yi ba pare doo ko menacé. <laughs> fii gars yi am na philosophie bi ñu doon demee nii bu ñu daan dem ndeer nii dañu daan dem ndeer di leb xaalis pour ñoom seen xaalis la ñuy jëli de. te boo xoolee sax xam naa quatre-vingt pour cent ñi ñu lebal yëpp c'est des partisans politiques. Oui. mu di la politique bi nekkoon dans cette affaire aussi. yaa ngi dégg waa ji der boobu du soxna si porte plainte Bara Ndiaye foofu la nekkoon nekkul woon foofu. non nekkul foofu. ah mm. ok donc teel naa menacé nañ jël këyit yi xool ko ba pare après xool yan condition lañ doon leble xaalis bi est-ce que ñu doon lebal dañ doon présenter des vrais projets. Oui. Hmm? parce que nee képp ku ñu lebal te euh, delloo wala fayloo moom di nga fay. naa dina métti nag parce que gars yi. <laughs> gars yi ñu doon fay non loolu du yomb. du yomb. non. lu tax. du yomb du yomb ko amul nag. da du am traçabilité wala. pour mu pour mu enquête ba xam mooy jafe. ku ko amul nag. waaw ah, nga lijjanti ko. Oh, nga lijjante. waaw <laughs> ah, nga lijjanti ko jëwriñ. xam nga bor ak détournement bokkul. pour la banque les près à des risques lan moo tax banque balaa muy leb de ut garantie. dana laaj loo am lépp de. waaw. boo fayal mu jël ko. waaw que après day xam ne mënul a topp fenn. man ay loolu ay di kii wax day wax rek. Hmm. du mujj fenn daal pour yow. non et puis nan lijjanti ñi doon leble yan condition lañ leb leblee xaalis bi est-ce que ñi doon leble sax gënuñ tax détourné wuñu lebluñ seen bopp yëpp a ngi ci biir ah. ok hmm. ku daal ci biir la war a audité ba pare. soog a génn ci bitti na dem bañ jox ko dossier mu ah, xool dossier yi ba pare. mu xoolee dossier yi ba pare. gis ni ñi ñi jël lépp lépp lépp nañu ndax société yi ñu présenté ba ñuy lépp société yooyu existe na est-ce que conditions yi ñu leen lebalee dossiers yi c'était xam nga yooyu yëpp dañ ko daf ko war a xool ba pare après doog a nag def lancé daal di ne nag. Hmm. Hmm. ok nekkul dafa bëgg a marqué empreinte am justement que ne ñëw naa yegsi naa la woon wandi na comme rupture bi ñu présenté. bon normalement je ne sais pas moom Aïda Mbodj je pas la parce que yooyu c'est. yëfu ah, kii la quoi nekkul loo xamante ni amal nañu njariñ quoi te le populisme lañ koy wax. ok <laughs> la quoi. est-ce que nekkul ci même directive bi que premier ministre parce que moom it nee euh, ku jël di nga goxe justement mais bokkuñu. ok ñii dañu détourné ñii dañu leen lebal. mais lebal aussi sa euh, amul par parlo parce que yaa ngi wax que ne la plupart ñu fa nekkoon peut-être c'est la clientèle yow instance yu ñu toll nii ñu ngi toog instance yu ñu ngi jëm tabaski. oui fi mu toll nii aide aide aide aide tabaski yi nga xamante ne Macky Sall moom la daan quarante mille la waaw yaa ngi dégg bàjjenu gox yi affaire yu demee noonu yëpp communes yi di est-ce que est-ce que yooyu yëpp dina am ren. est que yooyu yëpp dina am ren ko hmm? non moom commencé na dans les mairies je pense. Hmm. waaw. bon moom tàmbali na quoi. alhamdulilah. ok mais ñi wax que ne waroon nañ ko jox beneen post bu wuteeg DER parce que lii ça parle un peu de l' entrepreneuriat rapide c' est ça li nga xam ne moo leen ndaw ñi te moom apparemment booy xool nekkoon na ministre temps Abdoulaye Wade ba tey jii. waaw mais xam nga foofu sax c' est pas mal ah. justement oui. c' pas mal quoi parce que dossier yi muy saytu mooy ñiy déposer seen seen i i projets ñu war leen financer. financer waay. comprendre nga. Mm-hmm. loolu c' est pas bi ñu ko jox parce que poste la boo xam mag mën na ko gérer quoi. ok. mag mën na ko gérer quoi waaye na ko gérer pour man amul problème. benn problème war na ko mën a gérer quoi. yow moo la xaw a gêné. ko teel a daf ko taf ko taf ko teel a waroon na mën a xaar. Ah, tuuti quoi ba jot dossier yi. ba pare quoi dafa bëgg a napp gars rek. na leen ah, waxu jomaay bi jeex na. la Lion de ah. Bambey yegsi na. mu hmm? ne daa bëgg a wax ne la Lion de Bambey yegsi na rek. waaw. na yegg seen jàmm marqué ses et tout. Sénégal daa bëri bukki de. <laughs> Hmm? c'était état bi waxoon na sax dafay boole tout ce qui organisation yoo xam ne day jàppale ndaw ñu xam na on y va tout droit vers ça. mu di hmm. DER ay FONGIP ay 3FPT et cetera et tout. Hmm. te ay branche état la. waaw ay branche état la justement pour financer ndaw ñi. par rapport ak l'entrepreneuriat et cetera et en tout cas mu ngi noonu mu doon ay kàddu yoo xam ne yëkkati na ko moom Aïda Mbodj ñu ñëwaat nag ci ndaje mi nga xam ne dafa soxal wàllum yoon ak yoonale mu doon loo xam ne ci réew bu fekkee rek euh, dafa tëddeewul njaaxanaay euh, mën na indi ab tolof tolof démb nag la ñu ko tëj waaye ci kuréel gi nga xam ne ñoom ñoo jotoon wàllum réforme ak modernisation daal li ñuy wax mooy njiiti réew mi dafa war a seppi loxoom ci wàllum conseil supérieur de la magistrature waaye nag UMS e nee daal. na njiiti réew mi di wéy di des ci boobu boobule poste tey nag euh, euh, la plupart ci këru yéeni kaay yi neen daal euh, kaddu gu mujj gi moom njiiti réew mi moo ko yor selon yow est-ce que ce serait quand intéressant à ce que président génnee loxoom ci wàllum conseil supérieur de la magistrature et loolu sax ñu bëri dañ jàpp ne su amee moo nekk république des juges et que dégg nañ ko ci ouverture yi mu ne kat Sénégal noppeegul pour dem ci wàllum république des juges waaw bu fekkee waa MES ñoom ñoom ko wax ne président na des si biir. te ñoom ñooy les acteurs directs. kon kañ na fa des rek. ok na parce que tamit mën na fa des mais naka la fay desee. quoi la fay des parce que Alioune Tine noonu la wax nee na. bon rôle lay joué quoi. bu fa desee aussi mën na am implication wala sax muy. ay décisions di xaw a joué un peu. bon day dépendre ci état d'âme nit ki quoi. ok état d'âme nit ki ak neutralité am quoi. ko parce que tamit euh, moom bu moom bu fa desee war na mën na créer équilibre quoi. Mhm. nga. oui xamante ni nomination yi neetul nekk loo xamante ni moom moo koy. def directement daf ci wax nga xamante ni ñoom dañuy am seen procédure de nomination et de de transparence occupation des postes ak nomination yi bu transparence boo amee transparence rek moom mun na tësi. bu ñu demee nag ba ñoo am nag foo xamante ne dafa lëjee moom mu mm-hmm. ñëw intervenir li jën li jënti ko je que loolu moo gën a sage quoi loolu moo gën a sage parce que tamit moom mooy exécutif bi ak judiciaire bi ak parlementaire bi yëpp bon trois pouvoirs yëpp moom mënu ci manqué benn quoi mënu mm-hmm. ci manque benn mm-hmm. quoi mënu ci manqué benn mais dañu faral di gis exécutif bi di am benn mainmise justement euh, sur le pouvoir euh, judiciaire waaye même ba ci parlementaire bi quoi dans l'Assemblée loolu tax ma ne la saa su nekk dépendre na ci ki lay jiite nu mu maandoo hmm. nu mu maandoo quoi parce que tey jii xam nga tey jii faral kuy tooñ tooñ la hmm. <laughs> Hmm? faral kuy tooñ tooñ la une personne quand il est corrompu il est corrompu ah nga ma corruption moo gën a naqaree xeex moo gën a naqaree xeex quoi <laughs> moo gën a naqaree xeex mais comme niñ koy waxee ñoom. Mhm. Mm, tu vois euh, mën na ci bokk ba pare wëlbatiku euh, jox leen jox leen liberté ak autonomie. liberté wa gis ma. ci carrière jugé affectation yooyu noonu. nga xamante ni moom président lu muy woy lu muy moytu mooy ñu woy ko woy bu ñaaw. oui loolu man mhm. loolu laa gis quoi. Mhm. mais mais est-ce que est-ce que suñu xel mënta daal bu ñu ko gisee ñu fal ko mu tekki ay ndombal tànkam ci wàllum instance su parti pour montrer que il est le président de tous non loolu tamit signe la. waaw justement loolu tamit signe bu positif la.